Il war a un coopérative chaque région mais 14 raisons. Sur 14 raisons yi près si nationale des ferrailleurs du Sénégal waaye maa interpellé le le le ministre du commerce ne na attention parce que a coopérative boo xam ne mi ngi Dakar ñoom dañ au niveau national des coopérative régionale la buñ jël benn accord di ko signé te waxutoon ak ñi nga ferrailleurs Sénégal loolu maa interpellé ministre ministre du commerce du ko wax au ministre de l'Environnement environnement na def attention def tégué tankam bañ monter tous les coopératives yi nga xamné ñoo nekk ci 14 régions yi ba paré parce que ay ay section lañ wara monter ba paré su ay sous section lañ wara monter ba paré soko monter fédération fédération yi monter guñ ko comme ni monter fi tay tey sor non la wa Dakar monter té wa Dakar ñu nga taxaw né ñom dem nañ amna ñu ngi def ay tic di bëgg a gisee ministre bi pour bëgg a toog moom ne ñoom ñoo représenté ferrailleurs yëpp né ci Sénégal te loolu légitimul def moy ñun ñun jënd ferraille bi suñ ko jëndé yobbu ko ci usine bi usine bi togg ko def ko ferraille béton parce que bépp feer bi ñee tabaxee fi ne léegi si réew mi usine Fabrique métal moo koy defar ak Someta waaye Fabrique métal dafa nekk usine boo xam ne fer boo xam ne bu baax lay defar te maa ngi wax état Sénégal seen projet yëpp ak li ñee tabax lépp nañ ko jox usines yi si biir réew mi nga xam ne ñooy ñooy ñooy jënd ferraille si doomi sénégalais defar si fer de ñu bàyyi imp exportage exportage importation bi ñu indi fer importé bi nañ ko arrêté parce que suñ ko arrêté ferraille bi dana yokku ferrailleurs yi danañ mën a jaay seen ferraille bi suñ ko jaayee usine bi usine bi tamit toggee ba pare dana ko mën a jaay état bi parce que état bi lu mooy tabax lépp mu ngi koy bitim réew te loolu parce que loolu mooy doxal seen liggéey waaye suñ jëlee seen ferraille yóbbu ko si usine bi usine bi togg ferraille ba pare togg ko def ko fer ba pare te amul fu ko jaayee loolu tamit problème la kon lu baax mooy président Macky Sall nga xam ne soixante-dix mille ferrailleurs nekk Sénégal juróom ñaar fukki junne ferrailleurs fi liggéey te kenn ku nekk musuta sonal état musuta mu musuta laaj indemnité kon ñun suñu ñàkk la ñuy dundee te loolu dafa nekk chômage chômage bi mu ngi koy wàññi ah parce que ñu ma taxoon ni kenn ku nekk rek téeméeri nit mu ngi sa ginnaaw yoo xam ne yaa leen di financé ñii jël ay saret ñii di dem di jënd ferraille ci biir Sénégal fu nekk du koy indi kon loolu dafay wàññi day day créer emploi kon président Macky Sall nga xam ne ferraille métier bu noble la parce que weer wi dee danañ dugal presque deux mille euh, deux deux milliards cinq cent millions yoo xam ne ci nguuru Sénégal ci gafaka réew mi parce que ci transport

toog feera ferrailleurs yi toog ak ñu waxtaan ak ñoom waxtaan yoo xam ne danañ ko mën a teg ci yoon liggéey bi ñu mën ko teg ci yoon asalaamaaleykum wa fii fer bi bëri na fi ñun ñun ferrailleurs quinze mille tonnes lañ loon joxe par mois quinze mille tonnes te joxewuñ ko parce que li tax parce que usine bi nga xam ne mooy togg ferraille bi comme ni ma la ko waxee ñun suñ ko yóbbalee fer bi su ko toggee ba pare daf ko war a jaayaat ci biir réew mi te état moo ko mën a jàppale parce que dafa rëy ñu ngi tabax lu nekk ci réew mi kon fer boobu nañ ko jël di ko jënd ci société bi bi ngeen xam ne ci biir réew mi bañ ko jëlee bitim réew su boobaa ñun suñ feer bi dana dox suñ jëndee danañ mën a dem jaay te suñ fa jaayee du lambu asalaamaaleykum